bi Seex Bamba ak doomam ya tey ma ne cas ca seex sax way ko ngeen xamati te jooja sax deful kuñ réere naa ku mu doon turam wasiiw na fi dunyaa dun ko dee ak bokk xam na ko lislaam xam ko yoon wi itam xam nañ sëriñ dëru ngir pastéef ca jàmbaar la as gor la tey muslim jullit bu dëggal daarul asan njaay murit saadix la maa waxati yàllaa ko tànnal mu bëggu baax te bokk fu baax newoon fi cig baax ba dem cig baax dëggal maati rafet na jikko te tànnub juddu bokk fu rëy feeñul ci askan wu ñuy musloo ka xeebaate njare di maamam sëtum maam Demba Njaay njare la kañ xam ci ak baax ak i kiimaan yu jombaate maamam ya diine ngorey seen bàkku néegi cosaan lu jiitu Seex Bamba feeñ lislaam lañuy noote ñoo toqi daarul asan nampal ko meenu ngërëm bam ne jalañ lañ ko sóob seen yoon wu baax waati baayam bu baax ba turam waay seex muhammadu njaay ñu naa ko moor faati laaj leen njaboot gaati ndeyam jayit ndey yonnen moom la bokkalu tur lu yàlla nam mu nga gis tànnam ga caati maam soxna amina kan mooy ismu haa dëggalal jii ndey ju mat la tëb sangam gërëm kooti daa farlu woon ca def itte sàkku ngërëm ba am ko buur yàlla jël sëñ dëeru jox kooti buur yàlla sàkk na jaam yooyu seeni ndey woyeful ngir ñoom dañuy tànn seen waajur ya déngaati ngir ndey ju bon juy xuloo kay toog di xas sëriñam di wàññi dépaas du koy jur doom ju yéemaate ku baax te sell di sonnal yàlla ak sëriñam te sàmm mooy jur ku ñuy raamal di ñaan looti lii tax nga am doom ju ñuy raamal ndeyaa ko lëggéey lu baax nga tex bay ko moo tax góom nga yiw waati sa doom jëmbër la di ku nga ànd ak Serigne Cheikh Bara Ndiaye gën ko min ci kër gi di ab taalibe waaye tamit di kilifa ñu gën ko xamee gën ko Serigne Cheikh Bara mu mel ne nga gis mbooloo mi tey nga ñëw fii sa màggal sa bisu maam naka ngay wax taalibe ak li nga leen dénk en tant que sant neen suñ Darou Assane waa ñoo ngi sant bu baax rek di ñaan yàlla ñu fekke waat ko déwén yu bëree bëree bëri màggaluk Cheikh Darou Assane Ndiaye la di ñaanal xalifa bi mu yàgg fi te wéeru sëñ Abdou Khadir xam naa ci kanam dinaa ñëw ci ñu waxtaan ci sëñ Darou Assane bu baax a baax ak njabootam. maa nekk ci ba léegi Darou Ndiaye TV incha allah.